man ni waxee koy jàngatee mooy nañ sant suñu boroog ndax Sénégal dafa nekk réew moo xam ni àddina bi yëpp dañu bàyyi xel si wàllu démocratie may fàttali ni politique ñetti tànk la ñetti ponk pouvoir wut ko xeex pour am pouvoir bëree pour jot benn soo ko jotee yor ko teg ko si yoon def résultat ñeenteel ba waaj a préparer sa génn tubaab bi li ñu koy waxee la politique les trois temps de la politique c'est le temps de la conquête le temps de l'exercice et le temps de la sortie li gën jafe si politique mooy organiser sa sortie ba mu nekk sorti boo xam ni dafay dafay ubbil ay bunt réew mi boobaak léegi maa ngi dégg ñu naan commenté waaye situation bi wala est-ce que ñun dañu tiitoon dañu lii dañu laa c'est normal ku nekk am nga nooy sentiré mbir mais man li ma jàpp tey mooy Sénégal joxaat na addina bi yëpp une leçon de maturité politique Macky Sall acte bi mu posé man duma ko xool sous un regard politicien déedéet voilà Senghor moo ko fi defoon organiser génnam euh, Abdou Diouf ba mu ñëwee rafe génnam waaye mu dabu ko si ni mu doxaleek Wade waaye nangu ñàkk na ab Abdoulaye Wade aussi rate génn ndax waroon na mën a génn génn gu wuuteeg bi mu génne waaye moom tamit mu rafetal ko dabu ko euh, daal bi ko doxaleen anam boo xam ni génn ga rafet na ndax nangul na ki fi nekk seeti ko ñaanal ko wax lu baax si moom wax di indi ko disponibilité pour gunge ko li Macky def tey Senghor ak fi Sénégal